waay kenn du yéen <laughs> ah. euh, tey nag euh, bés bi dafa ala daw me euh, ndax bu ngeen xoolee plateau bi ni mel damay jéem a nag dégg ngeen bu ngeen xoolee plateau bi nii mu mel nii mu yànjee ngeen xam ne bés bi dafa ala doom bi kenn bañu fi dara gani ni ngeen baal ma ceraxu duus yi xam nga télé teraa ngay télé kaw la suuf bokku ci moo tax li ci suuf boo amee ay gan buñ ko gisee rek da ngay weere dégg nga sama gaay donc maa ngi leen di gërëm di leen sant Euh, du ñu laalaat benn. Ah. waaw nañ may waat benn ci a ah tët tët tët tët mais lii lan la nii mais Régis dafa mel ni war nañoo mën a war nañoo mën a dem ba midi de ah ñu dem ba midi de ah mais grand Dicko grand Dicko da ngay bàyyi gan yi toog ayca kaay leen ku mu neex nga ñëw présenté ko kenn ñëw nii. c'est bon ah baax na. baax na kon Aïcha kaay ah. bi. na Aïcha ñëw nii. da ngaa teg sa micro yow xaar moom fecc mee ko li mu tekki micro bi. <laughs> Aïcha merci beaucoup gars yi nga xamante ne nii yéen a ànd ak ñun ñu suivre euh, ci seen web actuellement parce que tey dañoo am bés bu mag a mag euh, c'est vrai que waa régie li ngeen li ngeen def Limaamu Laay Limaamu Laay ak ak Aïcha c'est normal ñu bokk bés Limaamu Laay mi nga xam ne super fan bu bu bu bët set la donc di ko di ko jaajëfal di ko souhaiter joyeux anniversaire moom tamit euh, damay bàyyi Ousmane Diko ma bàyyi la comme yow yaay fi mu toll nii yow yaay kilifa plateau bi yow ci sa ci sa kàddu nga wax gars après ma jox gan yi ñu wax. du ñàkk balaa ñuy tëj nag ñu xumbalaat fi tàng parceer. jërëjëf xam naa moom tonton bu ma yab la tonton bu mu yab la te ni xam naa mooy wax waaye daanaka man wax ji sax euh, du ma ci du ci soreel xëñ na oustaz mu ngi fi dina am lum ci sànni ñaan gi ñaan geeg yooyu waaw mais xam nga lii yëpp euh, maanaam euh, baax xol ak woyof. mooy indi lii nii yëpp ndax tey am na nu mu doon nekkeek ñun ah, man comme ni nga ko waxee ne xëñ na féete naa leen ak mag ak yooyu mm-hmm. kon seq lii yëpp wala bay def lii nii fii daanaka bi mooy anniversaire bu njëkk bu ñuy feeteel ci membre tëm ah, waa plateau bët set mm-hmm. ñu mu mel nii kon donc ah, am na solo trop taxawaayam ak oyofam ak baaxam moo tax ñu ñu dëkkee nii donc ambiance bii fi ne moo fi ne tous les jours nii la ñuy dundee bu ñuy ñibbi nii la ñuy dundee bu ñuy ñëw nii la ñuy dundee donc je pense que loolu am na solo trop ñu gën a war a mun a cultiver loolu ba nga xam ne du yem rek fii si suñu plateau bi day dem ba relation yi jur leneen lu raw sax relation professionnelle donc kon Aïcha ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire di la ñaanal nga feete ko ay at yu bëree bëree bëri bëri euh, loo njort si sa dund rek yàlla na la ko yàlla defal yàlla aar la yàlla sàmm la yàlla may la njaboot gu barke la barke jërëjëf Oustaz Oustaz doo sànni ñaan waay gars yi nee nañu nañu soufflé bouse yi. Hmm. doog a continuer témoignage yi. <laughs> Euh, parce que bëgguñu mujj toog xam nga kii moom dafa. Euh, tubaab moo ko fi <laughs> donc kan mooy kan mooy joxe kii bi. kuy waay. ayca euh, grand di ko wax na ba pare oustaz foo ma sànni si kàddu defaale ci ñaan balaa balaa may jox jigéen xaritu Aïcha Dia. waaw xaritu Aïcha Dia. sama góor tey loolu bu ko jox kàddu may yàq télé la en direct. waaw waaw waaw. maa coro mën a wax ma rek. sama noonu la de daf koy yàq. de moo waral woo moo ñaanal wax dëgg borom baax la. ndax dafa jël jikkoy turandoom Aïcha. ndax wax dëgg yàlla Aïcha wax dëgg soxna Ali koo xamante ku yaatu la ku baax te jikko jooju mu ci moom. ndax ko foo ko fekk moom day reetaan day kaf te du mer te du changé daal man moom yëpp naa ko trop trop trop trop mais borom baax la Aïcha moo xam ne bu dee moom nga fekkaat tey te loolu jikkoy sàng la daal baax googu rek moom lañ ñaan yàlla yàlla na ko yàlla continuer ci moom rek te yaakaar naa noonu la mel ci ñëpp ah dañ koy ñaanal lii mu yàgg koo séeré bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoom la ko bokkal ak ñi nga xam ñoom la ko séexal bàyyi ko borom këram yàlla mooy li nga xamante moom la ñu séntu ci dara ñu ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam man maa ko waroon jox kado mais tey dafa xëy jox ma kado mu ngi nii kado bu neex la ñëw jox kado man loolu ma jaaxal na trop waaye nag du ma la jox dara dafa tey <laughs> du ma la fay tuus du ma la fay tuus de ah, nga bàyyi ba ma kii rek su ma ay moom maa xool ma fakkati joxal ma incha allah daal borom baax la. Hmm. wax dëgg yàlla dañ ne ñaanal bu baax a baax. macha yàlla suturaal la kàttanal la may li nga xamante ni moo nga bëgg sa kanam mu doon suturaal incha allah kontaan na si yow bu baax a baax. soxna Mati. toog ñu baax ñu ko la ku yabu la euh, ku bëgg tamit lu muy def la euh, ñëw sonn sax mooy dafay am na foog liggéey keroog ñëw na pitim. forcé liggéey mooy woon ne daa bëgg lu muy def macha allah ne yàlla na ko yàlla la fa cat yàlla yokk ko sutura yokk ko xéewal yu bëri incha allah rabbi ayca maa ngi jël kan ah day ji jëlal kan fii si sama <laughs> mbir. waaw ah, tey tout est permis waa Régis baal leen ma de. Euh, xam nga ni gëj naa plateau lool waaye tey li ko jara ko jar muy euh, suñu mag ju baax ji Thiam Demba ak Bokar ah baax lool yaru lool ibbeeku lool man moom ma yab ko ah torop sax torop torop lakkal ko torop torop mais elle reste toujours la même toujours adorable toujours souriante donc euh, grande sœur chérie vie bien vis longtemps et yàlla boo jéem loo télé bi jaay Seydou Louga macha allah. Eh, ni moom ni nga mel ba ñëpp bi kay saa ma wax ko défaut bi défaut bi tii tiitar bi tuuti tiitar bi tiitar bi mais de vivre ma comme moo Mbaye <laughs> présenté wu rek wax. ça euh, ñu naan nit ku wul rek ñu xam. voilà ah. présenté wu rek ñu xam. Ndeye Diouf Ndeye Diouf une amie à Aïcha. donc euh, du bëri du gudd sama sama sama sama kàddu. Mm. parce que comme ni ngeen ko waxee yéen ñëpp donc résumé ngeen wax ji en fait baax c'est l'essentiel te daf ko def ba mu jeex li tax ma gën ko bëgg mooy yaayam yaayam daf ko gërëm cette fille là yaayam daf ko gërëm jëkkëram gërëm ko donc je pense que ni ñaar yooyu soo ko amee nga ñëw tey ay collègues am gërëm ko ñun ñii di ay xaritam vraiment zéro faute elle adorable généreuse généreuse macha allah dañ koy ñaanal yàlla yàlla anniversaire bi bu mu doon anniversaire bu mujj euh, maman Mbayang ñoom ñaar seen diggante dama leen di ñaanal yàlla bu ci dara xaj parce que ku nekk xam na ni si infidèle la ñu xamante waaye tey seen relation romb na loolu donc yal na yàlla sàmm ànd bi euh, maman daf ko buggoon jox kadoom aussi waaw daf ko bëggoon jox kado donc yal na yal leen cat seexlu en fait yàlla yàlla bàyyi la nga yeggalee sa sago léegi eh, guddul de moo ne. waaw ah, kay gudd la la waaw baax na baax na. directement Dubaï. cent franc de. waaw. de wàcc nag bu wóoleen dara góor. ku ne xam ne ci fii bokk la au moins yi. ndax tubaab bi nee na. la muy le plus noble et celui qui donne sa vie pour sauver son prochain. yéen seen ànd bi dëgg la. acca acca boo leen nekkee Dubaï. yéenay ànd liggéey. ngeen nekk Sénégal tamit yéenay ànd liggéey man nag man maay seen géwel ah Thiam Demba ak Bokar doomu yaay mama doomu yaay nday man yéen dëkk ma jaral yeewu heure bi barki Seex Xaadim kenn du yéen ci réew mi seen ànd bii daal ko ko nar a yàq yàlla dugg ci foos. vraiment baax rek moo am solo donc yéen tamit euh, ci commencé si kaw ba ci suuf ñu ngi di remercier amuñu seen parce que mënoon nañu bëgg def surprise aussi ngeen am neneen nu ngeen ko gisee wala mu am neneen nu mu mel donc on vous remercie du fond du cœur vraiment merci beaucoup merci merci beaucoup euh, Ndeye je pense euh, man maa waxagul damay njëkkee gërëm li ci maman maman Faty ndax moom moo tax tey jii ma xam Aïcha ba lii lépp am ak Mouhamed Diallo mi miinante bi je pense que avant avant ma koy ma koy gis laa doon dégg ay waxam ci Mouhamed Diallo benn jour ci ci rédaction bi fële ñuy waxtaan des fois ñoom grand di ko ñuy werante ñuy werante ci infidèle di werante man may défendre waa infidèle jàlloo euh, ñëw ne ma en tout cas daal ñeneen ñi xaw ma leen waaye Aïcha Thiam mi ma xam ne ma Mariama mi ma xam la ma waxee ne ma xamul sax fo bay nekk baat ñu leen doon jiiñ muy caga ñu baal ma ci kàttu yi ne ma kooku xamul sax fo maanaam dafa dafa dafa juddu ñu yar ko tëj ko teel ko maye maanaam dafa teel a sëy donc xamul sax caaxaan bay xam fo euh, def seede yu rafet témoignage yooyu bi mu ñëwee fii ci ci loolu laa gis parce que entre bëri jàmm ak bëri caaxaan ak bëri fo bokkul donc elle travailleuse aussi euh, je pense que ne position bu mu am ci bët set bi wane na ko mais également ci biir ci biir kër gi ndax bëri na ay moroomam yu mu fi nekk la doon ci test ya ba ni ñu yegg si fii bokk na ci ñi nga xamante ne nii kër gi am na ci moom yaakaar loolu jikko la déjà avant ngay man liggéey bi jikko bi moo ci ëpp solo ndax fii euh, Seneweb man chaque jour kilifa yi moom lañ may wax Raphaël chaque fois loolu la may wax kalaa nit di fi am benn ndombal tànk wala benn position bu mu fi am euh, ci wàllu liggéeyam ak xarañ gu mu mën am day fekk jikkoom doy ñu ba pare donc lu mu fi mënti am jikkoom moo ñu moo ñu moo ñu doy euh, man man ak moom je pense que ne euh, ñi nekk ci kër gi yëpp xam nañ sama jikkook moom <laughs> bañ nañ ko ma man ak moom lu ñuy juboo bëriwul mais ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ne ñëpp xam nañ ne mooy sama mooy sama mooy sama féete mooy sama séddoo ah, am na sax ñu ma ciy mere yenn saay ragal féete day xañ a wërsëg loolu la olof wax donc mooy sama mooy sama préféré mooy sama mooy sama séddoo des fois nit ki da nga koy da nga koy bëgg non sama xarit la mais sama jabar mu ngi nii. <laughs> voilà donc moom mooy sama mooy sama séddoo mooy sama mooy sama préféré je suis désolé de le dire mais loolu la yàlla bëgg te ragal féete day xañe wërsëg donc yàlla na ko yàlla defal jàmm ak xéwal bàyyi kook yaayam man sànq li nday wax. je que jour bi ma lay xam tamit jour boobu noonu est-ce que ci yooyu man ak moom mama Faty jékki-jékki rek di jooy lu bizarre ci man <laughs> mama Faty ni ma day nii lay def day jékki-jékki rek di jooy lu muy bëgg sama yaay <laughs> <laughs> loolu c'est extraordinaire musuma gis loolu ci ci ci ci ci doomu aadama donc loolu tamit dafa am lu muy wane dafa am ñoo xamante ne nii comme euh, oustaz du ma bàyyi mooy fen dafa am yoo xam ne bu jikkoowee ci nit soo ko bañee yow yaa yow yaa sikk mooy comme li ñu naan ku ku saxoo di julli ci sallallahu alayhi wa ku ko bañ yow yaay naafiq kooku kooku amul problème ku yaayam gërëm boo ko bañee tamit yow yaay naafiq donc yow yaay sonn tamit parce que yaayam gërëm na ko ba pare donc nga dolli ci sànq borom këram donc mënees nañoo am njortu fii ak ak fële ñu jëm parce que sa ndey ak sa borom kër bu ñu la gërëmee fii ça veut dire que sa fii dina neex incha allah sa fële dina dina baax aussi yàlla na la yàlla musal ci cat bët làmmiñ ak pexek noon surtout parce dañoo nekk ci réew moo xamante ne réewu noon la dangay ànd ak nit sax doo xam bi la ci bëgg ak bi la ci bañ mais yàlla na la yàlla wan say noonu niital leen yàlla faagaagal seeni pexe ba pare may la ndam ci say kanamu mbokk ak say kanamu soppe ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. tamit tamit ku jullit la wax dëgg yàlla ku ñëwee fi moom. wax dëgg yàlla bu fekkee ne. ah bu ngeen waxtaan diine waaw bu ngeen waxtaan diine waaw. waxtaan diine moom mën na ko moom. wax ñu jël aati moo waaraale. man loolu ma ci yàlla. xaw xaw deux mois ma tëj ma. waaw deux mois deux mois mais laaj Fall foog nga affiché photo Limamou Laye balaa ngay dugal sa jingle. sama sama bëri wax bi yëpp tey je pense que j'ai j'ai pas les mots euh, je vous remercie di remercier balaa kenn équipe euh, Seneweb bi ndax tey comme euh, maman nu mu ko waxee peut-être bu ñu waxul woon waaw lii yëpp du fi am. Euh, bi ma fi ñëwee yàggul mais euh, ñëpp dañoo ubbeeku ñëpp dañoo mel ni xamante nañ ay ati ati at te euh, lépp ci seen mbaax la aussi parce que man damay naan ba tey phase jàng rek laa toll donc euh, je vous remercie au fond du cœur commencé ko ci salaam ba si suufa suufa suuf yéen ñëpp ku lim juum di euh, gërëm aussi ma puce chère yi mooma moom aw ma lu may wax ci moom li ma lu ma waroon wax ci moom yow wax naa ko donc dama koy bàyyi yàlla di koy ñaanal borom kër bu ko mën a yore ci barke rasulilah donc ndey aussi yàqu ci dara donc su ma waxee répétition rek lay nekk c'est notre grande sœur boo xamante ne elle est protectrice elle est trop gentille donc euh, di ñaanal di leen ñaanal lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko yàlla defal leen ko Ousmane moom sama Ousmane la moom moom dafa maa bëgg benn man ma bëgg ko cent su ma ko yeewoon quatre heures du matin mu ñëw donc euh, il est disponible te nekk na superstar boo xamante ni bu ko neexoon kenn du ko yee fajar bi ni muy ñëw donc du tëggal como du tëggal euh, koo xamante ni vraiment bojo bojo la euh, yaakaar naa ni ku ko xamul tam dégg nga ko di lay ñaanal sa aar bi nga nekk yàlla fulal ko ñu lay dégg international incha allah yàlla xol lay fay te yàlla na la yàlla fay sa xol jubale ak sa njaboot bàyyi la fi ba si kanam a kanam incha allah yéen sama team bi yëpp je vous remercie vivement sama équipe technique technique